élection yi gis nañ ne ne mi ngi ci kanam lan nga gis ci élection yi ak thème yan ak thème yan sarax nga bëgg a joxe. élection yu neex élection yoo xam ne yuuxu dina jëp fu ko yaakaare wut woon waaye daal xam naa ne li fi ne jógoogu fi de mi ngi fi ba léegi. mooy Macky Sall. non jógeegu fi na saraxe nag jàkka ju ne. na fa yóbbu ay kees yu néew la ca des dinaa ko wax après. kees yu néew nga wax de soxna si. ay néew laa ko saraxeloo moom nag ci propre moyenu boppam moom moo koy saraxe la ca des su ma jotee man danaa ko wax lan la ak lan la ak lu ëmb loolu ak lu waral loolu. wax lan moo waral loolu soxna si. waxi kilifa kilifa la ndax mooy sunu président nag te réew dafa am loo xam ne daf ko baaxoo dafa coow li daf ne woon ku ci réew mi. maa ko gisoon ci bi mu ñëw wax ci na sénégalais yi di dem vaar di seeti ay waxi soxna Aida moom président laay waxal na def sarax bi ma ko wax gën na te leneen ak leneen ci biir te bu nu ca yeggee dinaa ko ko leeralal waaye keesi néew yi kenn du ko ko génneel moo koy génneel boppam képp ku bokk ci état bi képp koo xam bokk nga ci nguur gi na nga saraxi suluxu mbalax suluxu mbalax bee paase doomadaa mais bi suluxu mbalax nga wax doomadaa ba lan la def xam nga sénégalais da nga leen wax ay sarax du ñu xam sarax bi lan moo ko njunju waa mm-hmm. suluxu bi dañ koy génne képp ku nekk ci état bi da ngay génne ñetti boolu suluxu mbalax suluxu bu neex ngay togg génne ko ñetti ndab nga saraxe ko mm-hmm. boo ko saraxewut bu kenn jaaxal kenn soxna Ayda nag mu ngi toog bu dee nag loo xam ne sénégalais yee ko moom wala waa réew mee ko laaj maa koy njëkk a génne ak samay propres moyens yéen miin ngeen loolu ci man d'accord dañoo gis ne yow nga ni ab ah, euh, président yi gisaat mu toog te moom nee na troisième mandat du euh, am loolu loolu nan la mën a deme néew ma la day toog de dama la ni jógee gu fi jógee gu fi rek falaayam ah, mais boo nee jógee gu fi xel yëpp day nekk. dama da ni soxna Aida njunju da ciy dagg na ci teel jógee gu fi laa wax ku ci bëgg am lu leer seetul soxna Aida dana la wax lu tax mu wax loolu. mais yi dina am wala. dama ne. kii jógee gu fi dañoo nekk ci réew moo xam ne fii ba deux mille vingt trois ah ñu ngi ci nii ñaanu sëñ mu taxaa gi nag def na jàmm te jàmm dina am dana wàññeeku lool waaye nag dafa des ay tuuti ferñeent rek ci réew mi soxna da waxantuwul dem leen vaar soxna si yaakaar naa lu mu waxaat foofu tamit leeral lu ñu dem nag duggaat euh, euh, ci foo xam ne tamit euh, gis nañu fan yi passé soxna ci série yi am ñuy gis ñi dañuy sumeeku di def taatuñ leen di def naka su dul noonu en tant que de famille ba yow boo waxee ñëpp dañ lay déglu lan nga ñu mën wax tey ci loolu. bi dong nag li yokk dégg yokk corona bi sumeeku bi ci la de affaire de yi dañoo gaaw a sumeeku sénégalais yi léegi jigéen ñi gaaw nañoo sumeeku góor ñi gaaw sumeeku sumeeku da leen a yomb de. lan moo waral loolu est-ce mu ñoo jàpp ko ñu ngi àqru zaman nit ñi ñoo topp seen nafsu rek te ba pare nag euh, képp kuy jigéen képp kuy jigéen ak xale bu góor bu ndaw na nga saraxe connexion. connexion mais. <laughs> non bàyyi leen rëy bi connexion egsee ci réew mi ak li connexion def ci réew mi jàngat leen boobaak tey li xew ci réew mi lan la. am tamit benn maire boo xam. da ngay gis xale bu am 18 ans wala 16 ans wala 15 ans boo ko mosaan di foo di ko tooñee gel sax mu jooy xale boobu tey mooy jël di reyante ndax jigéen nañu saraxee connexion kuy xale bu góor toll ci 20 ans ba 30 ans jëndal carte di nga sarax ko ka nga dendal nga sarax ko. góor mi jigéen ne ko duggee ko connexion bu dee jigéen nit jël ko nga duggeel ko connexion ne ko saraxeel connexion dégg nga waykat yi ak ñi nga xam dañuy liggéey ci média ah ak ñi nga xam ne dañu porte de voix la ñuy wax ah porte de voix waaw ñi nga xam ne dañ leen wax ñu leen di déglu te lépp ak ñu yor siti nanu saraxe kenn ku ne benn téléphone wari wëri yaa ñu saraxe ko. Nokia jaw de ci ah. garaaw laa la wax nag lii nekk ci réew bu ñu ko fi bëggee dindi ku ne nekk ci jàmm kenn du tilimal kenn nanu ko saraxe kilifa diine yi ak kilifa yi ni ci réew mi. te yenn saa yi nga gis ñu dugg ci loo xam ne carrément lii lu kii bi dafa bari nanu jël juróom-ñaari lëjum yu bokkul ñu saraxe ko ci nawet bi billaahi bu ñu deful sarax yi ma leen wax dinan dem ba fu ndaje di daje ah bu ñu xoolee ndaje mi day wéet tamit gis nañ benn soxna si ah, bu génn ci télé ne boo gisee dee yi léegi bari yëpp mi ngi am ci ay Instagram ci ay TikTok ci ay ci ci YouTube bi ah, ci ay estati li ngeen noonu nga ko yow naka nga ko gisee ban jàngan nga ci ñi dàq estati nag deewuñu man looloo ma jaaxal ñi dàq estati ñoom dara wóqu leen si buru sax dalu leen xanaa xam loolu saraxe la defaru ba rafet nga estati loolu mbégte la loolu day dindi ay jàngoro sax corona bi boo dee seetaan ku solo ba rafet xale yi nii ñuy statee day dindi stress loolu mënul rey kenn. moom nee loolu mooy rey xale yu ndaw yu bari. xamam la du ma ci dugg mais soxna da moom bëgg na xale yi di gën a am connexion. leen de dinaa la ko xamal ñiy sacrifice ñun ñoo dëkk ak ñoom sacrifice guñ fi benn jànq. yaa may déglu ay responsable lañuy ñuy séqal liggéey rey leen ci kaw seen liggéey yi ñu séq ñoom ci lañ leen di nax ba rey leen yaa may dégg wuyu ñoo nekk ñun. mais friseur boobu ñu déggoon ne euh, temps yi passé moom moo reyoon loobe euh, di jàpp ko di ko dóor ba ba mu génn àdduna soxna si loolu nan nga ko gisee en tant que euh, kii nii seetkat. loolu def naa ci ay sorti kooku ko xool xam ne yàgg naa rey mais man sama mbokk jigéen ñi laay wax. nga seetkat yi góor yi ak yii nii doom yi ne ci réew mi liñ ci am bari na torop ñoo jur ñëpp ñoo jur ñëpp liñ ci jur ak a bari ndax seeni garambu bu yu rëy lañuy toog ñëw dugg sa kër yàq sa kër nga am sa problème dem wax leen ko ñu jël sa xol changer ko modifier ko defaat la neneen gis nga suñ yëfi kër maam yi li fi soxna Aida di wax ci boo demee vaar kenn waxagu ko fii li ma fi jëf ci lu leer kenn jëfagu ko fi li coow li bari bari bari te ku weddi demal vaar